di leen nuyoo fii ci Baol Média TV ak Baol Média FM ngeen mën ñoo topp ci site internet yi bu ngeen defee Tuner rajo wala Sénégal rajo wala rajo Sénégal lu mu ci man doon da nga am Baol Média FM 97.1 foofu ci Mbacké Touba. suñ site internet yi bu ngeen defee seen portail Baol Média wala Baol Média TV di nga am bépp image boo xam ne da nga ko fekk foofu noonu wala nga dugg ci Modou TV tamit danga ko fekk lépp lu image su Baol Média FM. tey nag ñoo ngi fii Poroxaan ci dalu Serigne Axma Mbacke moom Serigne Moustapha moom Cheikh du Bassir eh, tey ñu fekk fi ñoo xam ni yàgg nañoo ànd ak ñoom liggéey bi yàgg nañoo ñëwit nekk ci waañ bi nga xamante nekk ni ci la ñuy teralee eh, doomu aadama yi nga xam ni ñooy màggas ngir def bernde yoo xam ni ci lañ leen di eh, berndeel tey nag ñu feggoog jëwriñu waañ bi di kilifa goo xam ni yàgg naa ñëw ci jotaay yi yàgg na tamit teew ci lu mel nii xam naa dañ ko daal di jébal kàddu gi su nuyoo ñu seq ak moom laaj ak tontu rek ci diir bu gàtt ndax ku ne xam na ni waañ metti na tàngoor ak diggante ba ngay commencé bay pare lu ne ngay jànkatul ci jafe-jafe ak diggante ba mu fi dalee màggal si ba léegi ak kuréelu suñu Axma bi ci lan la ñu tënku tey ba màggal gu jot ñu ñëw defee ko defin boo xam ne dana seddoo xolu sëñ bi dana sedd tamit xolu taalibe yi ba bu ëllëgee ñu am cawarteeg deet siwaat fi li nga xam ne moo di Poroxaan kon xaal bisimilah. waaw kon asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh ñuy nuyu mbokk taalibe yëpp di siyaar ñëpp tey baaluwaat ñëpp ak tey baal ñëpp ak dañuy dellu nag di jiital nuyoo gi sëñ Muntaxa Basiru di ñaan suñ borom yàggal ko fi loolu tam naan wér ak njabootu borom Tuubaa Xaadimu Rasuul gépp di ciy teg sëñ Cheikh di ñaan mu yàgg fi loolu tànd wér ak njabootu maam Cheikh Ibrahima ci ñaan suñu waajur yi nag di ñaan suñu kilifa yi ñu yàgg fi loolu tànd di ñaan suñu Axma Mbàkke mi tamit mu yàgg fi loolu tànd wér ndax maanaam lii dafa yàgg maanaam dañoo maanaam ca Ndakaaru la nekk ñun di fa liggéeyal sëñ Tuubaa maanaam ñu mu fekk suñu foofu si benn daara ñu dajeek moom foofu maanaam ñu jël kuréelu ñetti daayira foofu maanaam muy daayira Masaalikul Jinaan muy daayira Masaalikul Jinaan ak daayira sa sa tumur diin ak daayira nuru daara ni maanaam ñetti daayira yooyu la ñu boole tuddee ko maanaam kuréelu suñu ma Mbàkke maanaam muy liggéeyal maam jaara ci poroxaan gi maanaam dañuy dajal suñu doole nag bu poroxaan gi jotee ñetti daayira yëpp dañuy dajal suñu doole maanaam lépp ngir liggéey sëñ Tuubaa ñëw jébbal ko sëñ Axma ñëw ci waañam gi nag maanaam sàkkuwuñu ci dara nag lu dul ngërëma sëñ lañ ciy wut maanaam lépp lu ñuy dajale te bëgguñu ci dara lu ju liggéey sëñ Tuubaa kese lañ ciy sàkku maanaam ñu ngi koy ànd ak nag tamit ak taalibe mi nga xam te ni ñoo ne ci kër gi ak soxnaam si nga xam te tam ñoo ne ci ñu bàyyi ñoog lépp nag waaw bàyyi ñoog waañ bi wóoluñu ci waañ bi maanaam ñu tam ñu ciy def suñu kémtulaay kattan maanaam ngir teral gan yi rek ndax bis sëñ Tuubaa bi lu ne attan na ko ak du bis bisu maam jaar gi lu ne attan na ko dañ ci ànd ak suñu suñuy magu taalibe dañ ñoo jox kàddu gi rek ñu nekk po parole daara ji ñoo jox ñu kàddu rek ñuy wax waaye dañoo mënut wax ji nag waaye dañoo ànd tamit kii nga xam ne mooy sëñ Mbàkke maanaam moo tax moom moo yor kuréelu daay kuréelu daara ji waaw xam naa dinañ ko jox kaddu rek moom ñu ci sànni waaye dañuy sant rek naan yàlla na borom defal taw tawféex tey si rek may ñu kattan ak doole ba li ñuy def fii ren bu daayoo ñu mën lu ko ëpp ci barke borom toog xaside yi waaw di ñaan yàlla na yàlla taas ci barke soxna si baax a baax baax di ñaan suñu Muntaxa nag mu yàgg fi loo tànn de wér yàgg fi loo tànn wér yàlla su borom kattanal ko dooleel ko ba naal yi mu naal ci yoonu sëñ Tuubaa yàlla may ko doole gum ko eggale te ñu ànd moom na te barke borom Tuubaa maam jaara barke borom Tuubaa bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman ñoo ngi ziar ñëpp di nuyu ku nekk si turam santam di jiital si nuyoo bi Serigne Mountakha Bassirou daan yàlla seen borom yàggal ko fi lool te yokk ko di si teg seen seen Cheikh Jëmm Fall daan yàlla si moom yàggal ko fi lool te ñaan bu baax sëñ Ahma Mbacké suñu borom yàggal ko fi yokk ko ndax day sagu mbooloo bi day sagu kuréel gi ni ko sama jëwriñ bi waxee léegi rek day ay mbooloo yu daje ànd ak ngi liggéeyal ku tedd gi soxna Mariama Bousso Jaaratullaahi ndax liggéeyal ko doon na loo xamante ne moom lu am solo la te Sëriñ Tuubaa wax na si ay kàddoom ne képp koo xamante ne ñëw na fii nii si Poroxaan di liggéeyal ku tedd euh, soxna jaara ndab boo munti indi du xool tilimaayu ndab bi dalay duy ba nga fees wante Touba moom bu ma neexee ma xool bu ma neexee du ma xool loolu lu du bërëb bi waxu ko fi te wax bërëb bi rek la fi wax ni que képp koo xamante ne ñëw na fi ah din ma fi fekk wala soo fi dafay ab diir te diir googu noonu maanaam mun nañ ko xayma si ab minute soo ko fi toogee sëñ bi fekk la fi te loolu noonu leen rafetee njort ni ko lépp loo xamante ne ñoo ngi ko fi liggéey nam nañ si am dina nga xamante ne mooy ngërëmal sëñ bi di koy jaarale si suñu kilifa gi suñu sëriñ sëñ Ahmad Mbacké di koy gën a ñaanalaat bu baax rek seen boroom kattanal ko seen borom wéral ko yokk ko ba lépp loo xam nam na ko liggéeyal ku tedd ki mu jàppandi si moom ba kayoon jotam incha mu xat ban ko waaw lii tënk kuréel gi rek mooy ñett mbooloo yi nga xamante ne daje neen bokk pas-pas nee neen mbooloo moom foo ko jisee moom du sëñ bi si boppam moo leen di boole sax wante pas-pas yee boole di nga gis si benn mbooloo ñu ànd ba pare am jékki-jékki ne ah man de gisatuma fi sama bopp te ba léegi sëñ bi la de wante pas-pas yi ñoo àndul te dafa yàlla dafa daje nag mbokk taalibe yi ñetti daara yi bokk liggéey yàgg bokk liggéey àndandoo bokk pas-pas sëñ Axma nag doon koo xamante ne ku ñu dooleel la parce que lii nii suñ demee ba mën ko moo ñu may fit doole ñu kattan ñu ba nga xamante ne lii nii war na ko mën. Mhm. biñ ko tàmbalee si kër geene xatoon na lool ba mbooloo bi xaju ko ni ñëw indiwaat ko fii nii te incha allah rabi luy euh, dem kanam rek la doon parce que sëñ bi ma amul tànk ginnaaw. tànk kanam dong dong dong dong la am boole gi nag li ko tëkk daal mooy pas-pas liggéeyal ko tedd ki rek àndandoo bokk pas-pas àndandoo bokk yëg-yëg na solo comme noonu mu doon addoo kuréel gi ah, bokk pas-pas moo leen boole ndax wax nañ ni bokk ba bokk jeex bokk pas-pas moo ci gën tey daan nañ ko defee ci biir kër sëñ Axma gi demoon def fa waañu waaye dañoo dem ba waañu yi mel melokaan boo xam ne ak doomu aadama dafay teew xataay xataay boo xam ne ñu ngi fi waañu yi yaakaar naa bi mooy ñaareel bi yoon xaw ma ñetteel bi ñu toggee fii kon loolu pas-pas la tey yàgg na ñaan yàlla ànd bi sax dàq ñu yàgg liggéeyal soxna Jaara Bousso yàgg teew fii ci dëkk sell bi di pàkk bu màgg bi di Poroxaan kon xam naa ci kanam Ibrahima Xali Diop ah, danañ jël benn soxna moom it mu addu ah, ci turu ah, mbooloo mi kuréelu sëriñ Axma gi su ko defee rek ñu daal di mën a yëkkat jotaay bi daa di jàll ci yeneen yi asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar di ñaan sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi lool ànd ak wér xéewal di ñaan sëñ Axma Mbacké yàgg fi lool ànd ak wér xéewal ak njabootu Cheikhul Khadim gépp ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ah ñun dey ñu ngi sant doole sant rek bi ñu yàlla booleeg sëriñ Touba boole ñoog sëñ Axma mii ndax jooyuñu dara ci kër gi lépp mat macha allah ginaar yaa ngi ndawal laa ngi. dara manqué wul ndox mi jus yi dara manqué wul ñi ngi koy sant lool di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool ànd ak wér a xéewal surtout waajuram bu ay fan yàgg a màggal màggalu maam jaara gii di maamam doollee sant rek ndax kuréel gi yàgg na du tey kuréel gi ëpp na vingt ans ñi ngi ànd ak sëñ bi mu di defar ba mu baax kuréel gi euh, masaalig la nooru daaree ni ak saadatu muridina bañ ko dalee dox nag du tey yàgg na ëpp na vingt ans ñi ngi ci di liggéeyal sëriñ Touba di liggéeyal Maam Jaara ànd ak kook sëñ ax ma doole sant daal lañuy def doolee sant yal na yàlla yàggal taxawaay bi yokk xéewal gi fu ñu bëgg a àgg ñu àgg fa sëñ ma yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool ànd ak wér a xéewal ak njabootam sant nañu lool waa Masaalik tam ñi ngi ñaan sunu jëwriñ ji sëñ du Diop yàgg fi lool ànd ak wér xéewal ak soxna Fàññing ak soxna Faatu Mbay ak ñoom ñi ci topp ñëpp ñu yàgg fi lool. kë fa ñuy daayira di kër nday ba yaasin ba moom it mu yàgg fi lool ànd ak wér a xéewal ndax ñoom ñëpp ci jàpp bu du woon ak ñoom it du ñu agsi fii ndax ñoom ñooy magum daayira bi yàgg na daayira bi depuis soixante-dix-neuf lañ ko sos ñu ànd ko di dem kër sëñ ma booba ma nga Dakaaru di ko fa fekk saa su ne di daayira ak moom Kolobaan waa kër sëñ Tuubaa ga booba soxnaam si nelaw soxna jaw moomu ñu ngi ko doon ànd ak moom ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe mu xippee ci àjjana gën a kawe di ñaan sëñ Ahmad rek yàgg fi lool xéewal yi gën a yaatu nag mbooloo yokkute barkeel loolu daal la ñuy ñaan jërëjëfati barke maam jaaritulaay am na solo comme noonu mu ko àddoo muy soxna si nga xam ni moo yor waañu wi mu wax lu am am solo depuis vingt ans depuis soixante dix neuf ba léegi ñoo ngi ànd ak kuréelu sëriñ Axma Mbacke gi euh, di ko dellu di ñaanal suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ak bépp jullit ak bépp taalibe boo xam ne rek teew nga ci poroxaan ji lépp loo fi sàkku suñu borom defal la ci sa njortu ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul kon mbokk yi woy leen di bàyyi xel euh, seen portail Baol Média FM